site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick un délai lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da plus top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko donc tey mu nekk ba su mbégte si ñun mbégte bi nag mun naa wax ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moom ndax tey buñ demee ba xalaat ne dañoo bëgg a organiser ci dans la commune de Fimela kon loolu dem naa na mbégteel la di ñaan aussi ñu yàgg tamit di ko def vraiment di ci kontaan di ci gërëm laa chambre de bu baax a baax a baax a baax Euh, rawatina nag ki nga xam ne aussi moom mooy la président Issa Dieye moom mi nga xam ne aussi moom mooy euh, parrain bi euh, programme bi ñu ngi ko ci sant ci teewaa bi nga xam ne aussi moom la def. ñun suñu wax si ci mbir mi mënu cee bëri bien vrai que ñun ñooy président antenne bi mais tey bu yegsee fii tey dafa am ci loxo yum jaar ba mbir mi yegsi fi ndax bu doon man kese rek du fi yegsi. kon man sama kaddu mom danaka sax du ci bari dañuy gëreum rek ñi nga xam ñom ñoy ñew ci programme bi euh, ndax euh, bu dul ñom xajna du fi yegsi bu do bu ñoon tamit xajna du démé ni ndax kenn kessa mënul dara kon lool yépp ñi nga xam ne ñom ñoo yor programme bi di commencé ci équipe bi nga xam ne moom la ndey faatu jiite vraiment su ma ko gërëmee rek gërëm na équipe bi yépp sama kaddu mënu ci bari parce que lépp lox seen loxo la nekk ba mu yegg si fii tey ah li ma ci dolli rek mooy tey buñ jëlee bés bi tuddee ko le président ñoo nationale des chambres de métiers du Sénégal de monsieur Issa Dieye c'est parce que dafa am fu mu teg commune de Fimela ànd ak ñun nag bu yàgg lool te aussi bi muy ànd ak ñun tamit fekk na fi ay kilifa yu baax lu si mel ni ñoom maire Mbaye ñom tamit wax dëgg yàlla yàquñ fi dara depuis ñu fi nek ba tey ñu ngi ñuy jappalé ci li nga xam ne moom développement de la commune de Fimla ci secteur artisanat bi kon tay le président bu ñëwé fi tay Fimla fekkee ci foire bu nek parrain bi kon vraiment def na delo na njukkal arrondissement de Fimla bi yépp ndax li defal ko commune de Fimla kessé arrondissement bi yépp la ko defal té vraiment mu ngi taxawu commune bi taxawu artisan yi taxawu arrondissement bi ndax bépp projet boo xam ne jaar na chambre de métier rek yegg si na fii ci Fimela projet bu nekk jaar na fii bulus yi jaar na fi projet bi nga xam ne aussi euh, moom mooy projet PESA bi aussi jaar na fi te loolu yëpp ci ndimbalam la te loolu je pense que tey artisan ne nekk commune de Fimela yëpp jot nañ ci lu jëm ci bulus yeeg projet PESA bi kon kooku bu ñëwee si bés bii tey ne moom lañ ko jagleel rek c'est parce c'est normal mu ñëw tewee lu mel nii ndax tey bu ñu yegsee fii tey rek tey bu ne ba commune de Fimela arrondissement bi tey xam lan mooy njëriñu chambre de métier yàlla ak moom moom moo tax ndax ñun yàgg nañ fi lool te xamuñu njëriñu chambre de métier kon moom ak mbaaxam ak yaatal bi mu yaatal moom moo tax euh, ñu xam li nga xam ne moom mooy njëriñu chambre de métier bi kon président aussi délégation bi nga àndal yépp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen ñaanal tamit lii ñuy def nii vraiment ñun kontaan nañ ci bu lool ndax ay nit yu am valeur nga àndal ay nit yu baax nga àndal yi nga xam ne gëm nañ secteur artisanat bi ndax chaque jour man ak ñoom ñu ngi tase ci terrain bi ngir lan secteur bi dox kon bu ñëwee fii te ànd sekk yow mooy wane ne ñoom seen engagement ci li nga xam ne mooy secteur bi seen engagement tamit ci chambre de métier vraiment ñu ngi koy matale ba mot sëkk Euh, pour mën a aussi euh, xamante ak partenaires yu fi teew loolu moo waral en fait euh, ñu def tout pour ñëw teew fii mais suñu ngërëm aussi amul àpp ci vraiment parrain bi parce que parrain bi en fait délégation mu àndal wane na ne film laa ñor na ko foire bi ñor na ko parce que en fait en tout cas ci doxalinam ak jëfinam man en tout cas gis naa ko ci ci maa ngi ko ci gërëm di ko sant xam na lii rek mooy développement Euh, ñun ñëpp dañ ci war a jàpp ku ci nekk euh, fi nga féete nga def ci sa warugal bu ko defee rek nañ mën a go développer arrondissement arrondissement euh, bu yëpp développer région bu Fatick développer suñu Sénégal mais aussi sax développer coopérative coopération yi fi nekk mun ma aussi ñàkk sant aussi le professeur Gaye parce que tey laa ko soog a gis pratiquement tey laa xamante ak moom mais man jàng naa ci moom ne ku bëgg film laa la mais aussi ku bëgg développement la à travers son la coopération mu am nii Euh, ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko talal loxo aussi euh, parce que ci suñu liggéey en fait euh, dañu encadrer ay jeunes di encadrer ay femmes te ñooñu comme ni ko waxee laaj nañ ay ay formation soxla formations lool soxla aussi ay renforcement de capacité tout récemment am nañ une collaboration avec le ministère de l' agriculture am un budget de financement bu toll ci 134 millions yoo xam ne ko war a financer ci biir département bu Foundiougne am nañ sax sept GIE yu nekk ci arrondissement bu Fimela yu ci bokk tey lañ bëggoon def cérémonie de lancement bi mais mise en euh, place des fonds moo xaw a tardé mais tey jii laa bëggoon indi bi pour présenter ko ci assemblée bi euh, pour vraiment ñu def la euh, distribution des fonds mais dafa xaw am retardement moo tax indaaloo ma ko. ci loolu aussi maa ngi sant aussi waa chambre de métier wuri maa ngi soog a ñëw parce que je de faire un mois de service mais ca kàttanu yàlla ci sama visite de courtoisie yi danaa ñëw ba chambre de métier gën a xamante ak yéen. Euh, parce que yéen euh, yéen fi nek kep ku fi nek aussi di yëngatu di GIE danaka mën naa rek foog mu lëkkaloo ak yéen bu mën euh, jëm ci kanam donc man dal maa ngi tàllal suma loxo donc à travers la coopérative donc des GIE bu appil bu Vimasa ñu leen tàllal suñu loxo vraiment di leen xaar ngeen renforcer ñu ci capacité yi mais aussi fep ngeen xamne ne fay jëmal doomu aadama ci kanam ñu ngi leen tàllal suñu loxo. et je me dis que c'est possible donc c'est possible parce que ñom ñu koy woné et je pense que une référence lañu pour que la jeunesse euh, mun forme suivre euh, formé wu dans leur localité ça ne sert à rien de tirer pour dem euh, de l'autre côté alors que li ngay wuti foofu am donc je pense que c'est un message qu'on lance à l'endroit des jeunes pour que nous gën formation bi mais nous gëm aussi c'est possible d'être dans sa localité et de réussir Je remercier vraiment aussi tous les partenaires à comme ni ko ñu ngi leen di talal loxo passé nañ liggéey aussi euh, sur le plan de la communication ak ñoom pour que ñu gën a vulgariser li ñuy def euh, chambre de commerce donc ak chambre des métiers euh, bu Fatick may leen di remercier en tout cas ci disponibilité bi ak accompagnement bi. loolu dama ko bëggoon wax rek pour wane ne dafa am ñoo xam ne c'est des hommes valeureux te ñooñu dañu nekk race rare race boo xam ne bareetuñu ñu mel noonu muy génnee dañuy fexe ba jàpp leen mais li laay wax léegi fakastal bi dafa bari xëcco bi dafa bari te xaltal bi dafa bari pax yi dañoo bari euh, booy gas pax ñuy suul dafa xaw a doy waar te li ngay def yëpp pour population bi la te loolu dafa am solo ci la wuri nekk te man wuri moo tax ma dugg ci chambre des métiers ndax man je suis président de chambre consulaire bientôt 15 ans ngi ni maa ngi liggéey mais j'ai eu toutes des difficultés pour mën a liggéey fii je ne pouvais faire que des activités culturelles que j'ai réussi quand même maa ngi ci mais la chambre des métiers dafa nekk pour ma am lu minimum bi ma am nee naa du ay banque de Issa itam du banque waaye am na yéene ku ko jàppale mu dem te mu ngi leen di jox xel di leen jox xalaat leen gunge di gunge ci loolu la ñuy topp ci gannaawam di ko jàppale magam lañu waaye tey jii fas nañu yéen ci lu ñu am jàppale ko commune Fimela bi c'est le poumon économique du département de Fatick et devenir le poumon économique du Sénégal de par pétrole

la porte d'entrée des îles avec toutes ces îles là ñëppay ne man pas ma gis sax dama la parce que bon, il fallait tourner la page essayer de se développer autrement mais loolu war pas ko def ci produit Ni c'est un produit yi amul ben produit mënul concurrencer au Sénégal et dans le monde moi j'ai été un peu partout j'ai fait des foires à l'extérieur un peu partout dans les pays arabes aux États-Unis mais un produit qui dara gënu ko Nous avons des def nous produit des partenaires foofu la affaire bu nekk pour que ñu mun ko valoriser ngeen am emballage yu baax yu rafet tegu ci baar yi nga wax ne normes yi pour ñu mun ko yóbbu am ngeen sens am nañ fi ASEPEX am nañ fi ñeneen mais war nañu mun a fexe en tout cas dinaa ci waxtaan ak président Issa qui notre président aujourd'hui nu ñu def ba nga xam ne ñu mën a valoriser ba nga xam ne foire bu amati ñu dem. en tout cas partenaires yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. di nuyu femme ñi nga xamante ne ñoo ñëw jëmal li nga xamante ne ñooy liggéey fii ci arrondissement Fimela muy femme transformatrice yi ndax bés bi su amee jëmm tey yàlla ak yéen la waaye li ngeen def nii nag xam leen seen jàppee leen seen bopp ay ambassadrice su arrondissement bi ndax lépp lu ñu fiy def yéen yéen a koy jëmmal à travers foire yi nga xamante ne mooy am ci àdduna bi yéen yéen ay wane meññeef yi nga xamante am na fii ci commune de Fimela ñoon di bu baax di leen gërëm ci détermination bi ngeen am waaye am na solo yi tamit modérateur bi li mu wax sànq ngeen ngeen ngeen jëfee ko ndax dafa am lu nekk lu am solo ndax foire yi tamit certes que exposition bi ni baax na njaayte bi baax na mais waxtaan wi ñuy waxtaan ci biir dafa am solo ndax waxtaan boobu mun nga fi jëlee seet naka ngay def ba am yeneen relation waxtaan boobu mun nga fi jógee tamit ba seet naka ngay def ba développer sa entreprise donc dafa nekk loo xamante ne lu am solo la waxtaan woowu mu leen deex nag dafa bokk ci ay am solo ci foire bi ngeen bañ ko tayel suñu leen ci wooyee ngeen jéem a toog waxtaan ak ñoom ñi ngi gërëm yi tamit nag ñi nga xam ne organiser foire bi muy antenne communale bu la antenne nag su ngeen ko déggee loolu ñun ñoo ko xalaat bu njëkk ba chambre de métier comme ni ko maire Ramatoulaye waxee rek dañ doon yëpp nit ñi ci oto rek di leen doon yóbbu Fatick commune pour ñu def ay activités ñu ne léegi nag ak acte trois de la décentralisation bi commune bu ci nekk da ngaa moom sa bopp ñun nak luñu waral mëna def moy jappalé leen commune yi mom seen bop mais également ñu mënal seen bop donc lolo tax tey ji ñu installé woon ay antenne communale mais Fatick la région de Fatick amna 40 communes amna ñu 40 antennes communales mais antenne communale de fimla ni mi fonctionné amul ben antenne bo xamante mi ngi fonctionné noonu ma ngi ànd ak nag ay président antenne président antenne bu jaxaaw a fi euh wa mi ngi ni mais xamna naa ne man gëm na ne wuri dépassé na leen en tout cas am nañu mbégte Amadou wouri Diallo en tant que président antenne bi ndax lii ñu def ni nekkul lu yomb il fallait le faire et vous l'avez fait ndax ku ne xam na organiser une activité promotionnelle nekkul loo xamante ne lu yomb la lu difficile la lu jafe-jafe la mais vous avez tenu bon nga gérer ànd ak ña nga war a àndal ba def lii ngeen def mun naa ne réussite bi am na réussite totale man loolu laa gëm fi nga xamante ne forme lañ nar a échoué mooy ñu dem ba déwén ngeen jàpp ne kat. ah daaw xëy na nañ ko waroon na mu waroon ta defee am na ay manquement yu amee ba tax ngeen découragé bañ ko defaat foofu la échec di amee mais bés bu ñu ca tollee déwén ngeen defaat deuxième édition bi si la ñuy gëm ne li ngeen woote woon dëgg la teg lii ngeen def nii tamit jàpp leen ne ñun chambre de métiers dinañ ko inscrire itamit suñuy programme at bu ci nekk nañu fexe budget foire bi nga xamante ne mooy foire communale bu Fimela dinañ ko insérer suñu budget loolu dañ leen koy teel a wax wax nag première expérience doonul lu yomb. mais nag su ngeen pare évaluer leen xool li nga xamante ne mooy manquement yi ak yi nga xamante ni waroon na am te amul ngeen seet ngeen koy lijjantee xam ne dëkk bi yéen yéen ko bokk kenn ku ci nekk am na ku nga ko koo xamante ni xaritam la gisuma fi maire de la commune mais leer na ma su ngeen demoon ci Lamine Toulaye Sarr mii ne ko maire de la commune daa war a teew day teew par force su ko defee yooyu nag mooy évaluation bi après xool kan moo waroon ñëw te ñëwul ak lan moo tax ñëwul ngeen fekk ji ko li ñu def ni commune mairie de la commune ngeen ko defal ndax mooy suñu premier partenaire li ñu def ni sous préfet ngeen ko defal donc kon lii su ngeen pare yéen def leen évaluation bi xool li tax nit ñi ñëwul ngeen dem waxtaan ak ñoom ñu à notre niveau tamit nañ leen gën a jàppale gën leen encourager wuri mii ngeen di gis nii jàmbaar la de am ku mel ni wuri yombul wax naa ko sànq biñ ñu toogee fee di réunion premier jour mu ñëw set si ma sama bureau dama ko tuutal dàq ko mu delluwaat. parce que maa ñëwoon ba fi installé fi antenne communale bi am ku ko jiite woon mu ñëw na ma antenne bi ni muy doxee man doyuma ma ne ko man antenne bi man maa ko fa installé kon yow sooy def leneen man sama yoon nekku ca mu ne ma man am naa sama bureau ñoo waxtaan ak man bureau baa ngi nii ñoo ma tànn may leen loolu daal du ma ko jàppee lu dul association laa ko mën a considérer mais du nekk antenne wuri dellu bu ko neexoon tey jii munoon na gedd ndax mi ngi jiital la commune de Fimela pare pour travailler pour liggéeyal volontairement la commune de Fimela ñëw sensibiliser artisans yi man ba ma fi installé antenne bi li fi amoon ci carte bariwul mais ba Amadou Wuri ñëwaatee plus de 300 cartes ñoo xamante ne moo dem wër commune yëpp inscrire leen indi xaalis bi indi document yi ne ma ñii ñëpp ay carte chambre de métier laa bëgg ñoom mais loolu moom mooy volontaire nit ki soo fay nekkee da nga nekk ci dara da nga ci ànd ak détermination. mais nag nga la ma leen wax nii ba mu njëkkee ñëw sama bureau dama mel ne ku koy dàq mais deuxième bi ba mu ñëwee dama ko accueillir à bras ouverts xam ne kii lañ doon seet kii mooy liggéeykat c'est un vrai travailleur pour ñu ngi lay gërëm bu baax di la wax ne li ngay def nii ah bëri na ay communes yu ko bëgg de wuri mii ngeen di gis nii bëri na ay communes yu nekk ci région bi suñ sañoon am ku mel ne Wuri Diallo mais yàlla def na amuñ ko mi ngi leen di taxawu mi ngi leen di jàppale mi ngi leen di défendre amul lenn luy génn ci chambre de métier bi ba commune de Fimela des ci ginnaaw loolu moo ko waral